bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina maulana mohammadin amin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaani ila yawmi din asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi rawatina mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu fu waay mën a nekk moo xam ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen ndokkeel te di leen sargal ci weeru tedd wi nga xam ne ci luñ nekk muy weeru gàmmu di weer wi nga xam ne ci la sangu sang yi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon ak jamono muy bis bu am solo boo xam ne ci lañ koy fàttaliku bis boobu nag xam ngeen ne wala weer wi sax bu ñëwee xel yëpp day dem ci cheikhul xadim mi nga xam ne bokkoon na ci li taxoon mu wàcc ci kaw suuf muy liggéey sallallahu alayhi wa sallam loolu it muy loo xam ne kuréel bii du kuréelu liggéeyal gu tedd gi kuréel bi nga xam ne dañoo tànn liggéeyal cheikhul xadim ci xam-xam ci di ko tasaare ak di ko jàngale te tey ñu lëkkaloo kuréel bu mag bii di kuréelu daaira Muxaddamatul Xidma di ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo yor jumaa ji di di ko saytu ngir lëkkaloo bi ngir gën a mën a yaatal njàngaleem Cheikhul Xadim ba mën a tasaaroo mboolem ci biir àddina xam ngeen ne kuréel bi danañ amal ay activité ci màggal Touba waaye rawatina nag bu weeru gàmmu ñëwee di weer wi nga xam ne mooy weeru Cheikhul Xadim ñu amal ay waxtaan yu am am solo euh, biñ ko tàmbalee yàgg na tey jii nag lëkkaloo bi nga xam ne moom lëkkaloo kuréelu daaira Muxaddamatul Xidma ñu di ko defee fii ngir gën a mën a yaatal liggéey bi tàmbali nañ ko am ay waxtaan yoo xam ne euh, def nañ ko tey jii muy ñaareelu numéro bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee di waxtaan yi nga xam ne moom lañ def ci gàmm gi ngir gën a mën a tasaare njàngalum sëriñ bi waaye gën a mën a xamle sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo nekkoon njiitul sëriñ bi wala moo nekkoon ki nga xam ne moom la Seexul Xadim doon liggéeyal tey ji nag ñu fa fas yéene wéyale waxtaan yooyu ak tomb yu am solo yooyu nga xam ne moom la ñu tàmbali te kuréelu liggéey ku tedd gi lëkkaloog daayira Muxaddamatul Xidma tey ji incha allah ñu tànnaat beneen thème boo am solo waaye tànn borom xam-xam di gëstukat di sëriñ Abdul Xaadir Bousso moom sëriñ Alxaaji Cheikh Bousso moom sëriñ Afi Mudu Saadix mu fas yéene tànnal thème bu am solo muy mujisaatu sallallahu alayhi wa sallam ci mbinu Cheikhul Xadim wala boog xar baaxi sallallahu alayhi wa sallam ci biir mbindum Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mu jàngat bu am solo boo xam ne moom lañ fas yéene ànd ak Serigne Djily kon xam naa dañuy dugg ci waxtaan wi jox Serigne Abdoul Khadir mu nuyoo njëkk nag ñuy dugg ci biir waxtaan wi Cheikh Abdoul Khadir asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyai wal mursalin sëriñ maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi teewlu yëpp ñu ne ci jotaay bi ak fu ñu nit ku baax di mën a teewloo te jàpp nañ ne képp ku ñu teewlu rek ku baax nga ndax euh, barab bi ñuy waxee ak jëm ju tedd ji nga xam ne moom la wax ci ay mbiram mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ci jëwriñam jiñ koy jaare muy cheikh cheikhuna ahmadul xadim radiallahu anhu di nuyu ñëpp di leen ziyaar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne sëriñ bi joxoon na ko wàccuwaay lool tudde woon ko bahjatu shuhur jàpp ne it mu kay woon yeneen weer yépp ngir sabab si ci làquta mooy di ci yonente bi sallallahu alayhi feeñ di weer woo xam ne fonkoon na ko lool ci di ko dundal ak di ci wane ay mbir yu wuutee ta xeetoo di weer woo xam ne it yàgg na koo dundal ci ay xeeti jaamu yàlla yu baree bari te ba ca gën a fees rek mooy dundal guddi gi digle ñu dundal ko wax ci ñu dégg ko waaye jëf ci ñu gis ko kon daal ñu ngi ciy ziyaare ñëpp di ñaan suñu boroom defal ñu kàttan ak wér ak tal ñu demee ci bis bi ak sago dugg ci kon ni ko ñëpp waxee ci bismillah génne ci alhamdulilah lépp lu ci aw yiw tamit ñu màng ko ci suñu borom jaare ci defal ñu euh, pàggu yi nga xam ne moom la ci sëriñ bi wax ci jës bu tamu yu bare bari waaye dàqal ñu ci bépp lor rawatina mboolem xeeti tawat yeeg euh, musiba yeeg balaa yëpp ak jafe-jafe yi nga xam ne nit dana ko faral di yëg ci digganteem ak boroomam wala ci digganteem ak boppam wala ci digganteem ak nit ñi. maaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Abdou Khadir ci nuyoo bu am solo boobu di nuyoo bi nga xam ne dañ koy jàlle ci mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuréelu liggéeyal ku tedd ki. ni ko waxee léegi rek ñu ngi ci waxtaan yi nga xam ne moom la kuréel bi di amal weeru gàmm bu jotee di rabi yaat di tànn ay thème yu am solo yoo xam ne dañ koy jagleel sangub sang yi di sallallahu alayhi wa sallam ngir gën koo xamale mbooleem murit yi rawatina tom bi nga xam ne moom lañ tànn tey mooy xar baax yi sala <clears throat> xar baax yi sallallahu alayhi wa sallam ci mbindum Cheikhul Xadim xam ngeen ne xasa idi sëriñ bi lu bëree nga ci lu ne nga ci loo xam ne euh, lu les mën a jàngale la mm-hmm. te sëriñ bi it bokkoon na ci li nga xam ne ma doon ab liggéeyam mooy liggéeyal sallallahu alayhi wa mm-hmm. lu bëree mi ngi ci ay mojisaatam mi ngi ci mhm. yoo xam ne day mel ne kenn mënu ko takk mhm. mu mel ne rek mënut a ñàkk faw ñu tànn yenn ci thème yooyu ngir gën koo mën a waxtaaneek mbooloo mi mhm. ñu gën a xam dunduk sallallahu alayhi wa sallam waaye ci biir mbindum Seexul Xadim xam ngeen ne sëriñ bi dañ koy waxee jàngalu ñu diina ju bees waaye daf ñuy jàngal naka la ñu mën a toppee diina ji tey naka lañu ñu mën a roy sallallahu alayhi wa sallam kon ci biir loolu moo tax ñu tànn thème bii gën koo xam xamle mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy ñoo ñuy déglu di ñu teewlu kon sëriñ Abdou Khadir dañuy duggee ci waxtaan wi mm-hmm. tom bi comme niñ ko xamee mooy xar baax yi sallallahu alayhi wa sallam ci mbindum sëriñ bi day mel ne xam naa xar baax yi uh, am na yoo xam ne um, day mel ne jiitu gane àddina sallallahu alayhi wa la mm-hmm. am ci yoo xam ne ci bu mu gane àddina am na ci yoo xam ne njëkk ñu ko yónni ak yi nga xam ne day mel ne ginnaaw bi biñ ko yónnee ci la feeñ mm-hmm. yooyu dugg ci xar baax yi Eh, dañ lay jox kàddu gi rek nga indil ñu ci xar baax yi sallallahu alayhi wa sallam ci biir mbindum Cheikhul Xadim. Mm-hmm. Cheikh Abdou Khadre bismillah. ok jërëjëf Baye Serigne ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax waaye di nuyu kuréel waa kuréel liggéeyal ku tedd ki di leen sant di leen gërëm di rafet rafetlu taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy amee ci wàllu xam-xam ak dundal noonu ndonal sëriñ bi waaye it ak ci yaatal gi ndax jàpp naa ne bu ngeen ci ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma wala mbooloo mu mu ngeen ci mën a àndal rek loolu ak yaatal la ak wane ne nit benn la daayira bi it moom it euh, waat taxawaayam bu rafet ci moom it yaatal gi ak yëpp yëpp day ginnaaw ñoo bokk luñ bëgg bokk fuñ jëm moom jàpp naa ne an liggéey du nekk suñu jafe-jafe ni nga ko waxee mbindum sëñ bi dafa làmbu lépp rawat na nag lu aju ci jëmmi ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam ndax ginnaaw moom yàllaa ko yonente bee ko yonente bee ko tànn ci biir tànn suñ boroom def ko mu nekk xadimam jàpp naa ne fekk lenn rek lu tax ci yonente bi sallallahu alayhi ci biir am mbindam du nekk lu yéeme waaye it du nekk gan sëñ bi nag ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wax na ci lu baree baree baree bare daanaka wàll goo ci laar rek danga fekk sëñ bi xuus ca waaye nag daf daf caa bokk wàll ci ci yooyu daf caa bokk wàll ga gën a fés muy wàllu xar baax yi loolu nag dafa mel ni am na sabab ndax ki nga xam ne muy wut lu baax di ko wute ci ku baax ñaare mu xam xar baax wala jagle yi nga xam ne suñ borom defal na ku baax kooku dana tax mu gën koo fonk dana tax mu gën koo bëgg te sëñ Tuuba ak cofeelam ak bëggam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na foo xam ne dem na ba yëg ne maanaam yiw la woo xam ne da ko war a tusaare moo tax dañuy gis ci mbindam yi bu ñëwee ci mojisa yi da ciy xuus bu baax a baax a baax def ci ñëwee ci anam goo xam ne day daw yaram lool waaye it comme niñ ko waxee wax saa yu jugee ci xol day tàbbi ci xol da ko ci yëg benn ruuxaaniya benn nuuraaniya boo xam ne ak it waxee ci xaal ci al ju kawe joo xam ne ñaare booy lit xasida yi te xam ca tuuti ca la muy firi léeg-léeg sax doo xam lu muy firi waaye benn connexion la daal boo xam ne day am diggante sa diggante sëñ bi mu jokk ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jokkaat ci seen diggante sëñ boroom boo xam ne moo lay maas ci nga gën a bëgg yonent bi sa alayhi wasallam moo sa yooyu nag bari na bu ñu demee ci téere siira yi ñoom danañ ko tuddee ay tur yu bari Euh, comme ni nga ko waxee am na ci yoo xam ne dafa ñëw dafa feeñ njëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di feeñ loolu ñoom nañ ko faral di tudd ay irhasat luy yëgle loo xam ne daal lancement la buy wane ne am na luy waaj a xew ñenn ci ñoom danañ ko tudde alaamu nubuwa ay màndarga yoo xam ne day wane ne kii ay mbiram ci kanam danañ ko danañ ko dégg danañ ko tudde yeneen tamit dalaa idu nubuwa loolu mooy yi am njëkk muy feeñ bi muy feeñ it am na ay kimtaan yu mu àndal bi mu feeñee ba noppi njëkk yón njëkk suñ borom di ko yónni am na ay kimtaan yu feeñ ci moom bi ko yàlla yónnee ba noppi am na ay kimtaan yu ko daan gunge ba ni ñu ko noppee gis ci suñu bët am na it ay kimtaan yu ko yàlla yàllay xaare ëllëg yowmal xiyaam yëpp ay mujisaat la ay ay ay ay irhasaat la ay anlaam la ay dalail la yoo xam ne ñëw na ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu waaye yaakaar naa lu ñuy tënk lay doon rek euh, buñ de xool yi nga xam ne moo feeñ njëkk yonente bi sallallahu di feeñ jamono bokk na ci mooy yonente bi nga xam ne njëkk doomu aadama di sosu kii seen maam muy aadama njëkk muy sosu fekk na yàlla jox ko ak waam xamal ko ne ëllëg dañ lay yónni moo tax borom xam-xam dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi mooy ki yàlla njëkk bind ak nubuwaam bu noppi mujj koo yónni loolu ci ay xar baaxam la bokk ku ñuy wax Abu Jaafar Muhammad ibnu Ali dañ koo laajoon ne ko yónnte bi nak naka la ko yàlla mën a njëkk joxe ak nubuwaam bu noppi mujj koo yónni mu ne yàlla bam bindee aadama bind ci moom ay nit ñoo xam ne ñoo war a sosoo ci ñoom dafa dajale ruu yépp daal leen laaj ne leen alastu bi rabbikum nee na bam dajale ruu yi ruu yonent bi moo njëkk a jug daal ne balaa bam njëkkee wax balaa nag foofu la yàlla signé ne kon moom mooy njëkk a amee nubuwa ak donte moom la ñu mujjee yónni loolu Sëriñ Tuubaa na ko baana li jumlatil malaa'ikil kiraam kawnu rasulillahi lil xalqi imaam baana bi xawlihi balaa hudaahu yawma alastu fahada siwahu am na faneen fu muy waxee ci jës bu salli wa salliman ala man qad ajaaba bi bala yawma alastu awwala mooy kon moo njëkk a wuyu xabla zawit takallumi wahuwa allazi faaqa siwa min albaraya bi huda xata bada kat bu suma fi arshika almuazam loolu ay xadis yu baree bari rot ci bokk na ci xadis bi ci gën a siiw mooy xadisu abdullah ibnu shaqiq mu jële ko ci masiratul fajri mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laajoon ne ko kañ nga nekkoon ab yonente mu ne bi ma koy nekk boobu aadama ñu ngi koy bind te noppeeguñu mi ngi ci diggante ruu ak yaram am na ci beneen xadis boo xam ne mooy xadisu baat ibnu saariya neen dafa damaa diggoon yonente bi naan man maay abdullah man lañ bind ci man xaatimu nabiyin nga xam ne maa fi mujj man la yàlla yi mujj yónni te loolu bi muy am boobu aadama ñu ngi koy defar ci ban noppeegut sotteegut daal loolu nag borom xam-xam dañ ne noonu rek lañ ko war a déggee ku mel ne suyuut yi lañ ko war a déggee mooy ne kon nubuwa gi bi bi ko bi ko bi ko yàlla jox booba aadama euh, ak bindam sotteegut loolu moo tax ñu ne aadama biko ko yàlla bindee bu noppi dafa gis tur yonent bi sallallahu alayhi ci aras ñu bind ci muhammad rasulullah foofu la suñ tubaa di wax naan xaazal aminu min al mawla nubuwatahu qidman wa aadamu fi salsaali qad lubida mooy booba mi ngi mi ngi jaxasoo ci biiru ban sabata kawnuhu nabiyan wa sanat wa jadduhu aadama wa jadduhu aadamu tiinun wa jasad nubuwatuhu qabla albaraaya xadin jalat lahu sab xiina aljaddu fi tiini yuxzanu yëpp day wane ne loolu ci ay xar baaxam la bokk mooy daal yàlla jagleel na ko njëkk ñuy bind maamam aadama njëkk doomu aadama di sosu te mi ngi sosoo ci aadama fekk na mu jot cee ak yonenteem ak nubuwaab la anta allazi utita qidman watan wa aadamu bayna al maai wa tini yanjali bokk na ci ay kimtaanam it mooy suñ borom dafa siñante woon accord ak yonente yi fi ñëw ñëpp ni leen nag ku ci man di dem ci yéen ku ci wàcc suuf di dem ci saw saw nit am na koo xam ne danaa ko yónni jëmmi jamono bu la fa fekkee na ko gëm topp ko yow boobaa da ngay ni moom di di di sa daawa waaye kii nag moom moo leen di jiite yéen ñëpp wa iz axada allahu mithaqa annabiyina lama aataynaakum min kitaabin wa xikma summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum accord bi mooy la tuuminunna bihi wala tansurunna ba mu ko waxee daf leen ne ndax li ma leen wax dégg ngeen ko daf ko confirmé qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri ñoom ñu tontu ne qaalu aqrarna léegi mu daal di wax malaayka yi ñu seede qaala fashhadu ana maakum min ash-shahidin kon loolu it lu ko suñ borom jagleel la laqad jaa fi lqur'ani ma dallana ala ma dallana maan ala taqaddumika almuti alataa almukammali fanin muy wax naan li ahmad almuxtaari ma la yura abadan li gayrihi faaza man lillahi walaahu allahu faddalahu qidman wa qaddamahu wa man aba nahjahu bilazli xallaahu kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo fi jiitu moom la yàlla def mu nekk raisal xalqi sabata euh, kawnuhu raisal xalqi qabla zuhurihi bi isnil xaq te boo fekk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñagul jamono kimtaan yi may wax yii yëpp mooy njëkk muy feeñ jamono sabata bi ittifaaqi ahlil xaqi kawnu abil xaasimi xayral xalqi sabata bi ittifaaqi kullil uqala ngis ne Sëriñ Tuubaa ci ay wax ñu wuute la koy wax ci ay xasida yu wuute yi wan ne rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du moom lil mustafa inda rabbi nnaasi martabatun taalu maratiba ahli siiti wal mikani allahu faddalahu qadman wa jallalahu qidman wa jallalahu wala yakunu lahu mislun walam yakuni maa ngi wax ci raaya salla alayhi allazi fi ljahri qaddamahu musalliman tibqa maa yahwa wa yaxtaaru faneen muy wax naan salla alayhi allazi fi ljahri qaddamahu xatta dara sabquhu sabqahu gumrun wa man alima njiitu jiitu gi jiitu ak jagle gi ko yàlla jagle teg ko ci kaw ñëpp loolu ku xamut xam na ko waaye ku xamit xam na ko bokk na ci ay jagle la mooy euh, xissab ñay wu siiw woo nga xam ne Abraha daf ci àndoon ak délégation bu mag jëm Màkka ngir bëgg koo màbbu ngir rek ay intérêt personnel ndax boobu gisoon na ne amoon na palais boo xam ne daal bu sañoon ni nit ñi demee Màkka di ko siyaare ji ñuy ñëw ca pale ba ndax la ci juddoo ci koom-koom ak yu mel noonu bam bam ànd ak délégation ba ñëw ba jub kaaba gi ak la ci xew lépp na suñu borom yebale ab picc yu baree bari ñu ànd ak ay doj yu ànd ak sawara di leen jam comme ni ko alxuraan nettalee ci suuratul fiil loolu dañoo wax ne dañoo wax ne euh, li tax yàlla def ko mooy daf koo def ngir réserver ngir bëgg a réserver kaaba gi yonent bi sallallahu alayhi ngir wan ne kaaba gi daal am na kuy waaj ñëw koo xam ne bu ñëwee moo koy saytu moo koy sàmm ci ay loxoom lay mujj ak xeetam loolit e, feeñ na lool ne jagleeg yonent bi la sallallahu alayhi ndax xisab abrahu boobu bi mu jàllee mëttub diir bu yàgg yonent bi sallallahu alayhi daal di feeñ jamono am na ñu naan fan la wala sax lu ko gën a néew e, loolu sëñ Tuubaa ma koy wax ca jës bu naxaa ilal baytil xaraam li koy yasira dan hidam mustadrajun min anam mustadrajun min anam mooy abraha li jahli bil muazzami ba mu koy def xamutoon da umpale yàlla moo taxoon ma ko doon def wallahu jalla faala bi jayshihi ma faala loolu la ko yàlla fayee mooy daf foo toroxal mook mbooloo mi ànd loon kan moo tax mu def ko nag ak lan moo tax mu def ko bi jaahihi loolu mooy mahallu shahid bi yonent bi sallallahu alayhi rek moo tax mu def jëf-jëf ju wa ja'ala kaydahum fil yahim ci lay continuer wal kullu min zawil batar maata bi aswa'i xajar ja'alahum rabbul bashar ka luqa min linahim kon yooyu ay misaal la ci kimtaan yi feeñ njëkk muy feeñ jamono waaye bi muy feeñ jamono dafa am ay kimtaan yu feeñaat ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa yooyu ak xar yooyu dafa dafa am yoo xam ne dafa doon wane ne am na luy waaj a xew lu rëy loo xam ne système bi mu fi fekk dana ko fi dindi indi fi beneen bu bees am na ci yoo xam ne nag ay kimtaan la yoo xam ne dafa jëmoon rek ci ñaari nguur yu rëy yi fi nekkoon te mooy nguurub Faris ak nguurub Rome yooyu yëpp di wane ne kon yi nga xam ne dafay nekk nekk ay neen ak i caaxaan dana fi jóge waaye am na dëgg ju sax ak lu wóor loo xam ne mooy taxaw palaasam kimtaan yooyu Sëriñ Tuubaa nettali na ko ci Jazbul Xuluub bi ci njëkk mooy yonent bi sallallahu alayhi bi muy feeñ jamono waxtu bi muy feeñ jamono bi ko bi mu génnee rek am na leer gu jolli gu kawe goo xam ne nee na ray ba ñëpp teg ci seen bët leer googu waajuram moo ko nettali ak ñi fekke woon bi muy feeñ jamono dañoo wax ne leer la gu mag goo xam ne bi nee ray diggante Makka ak li muy sore sore boo tollooy màkk dangay ngay gis falay shaam euh, leer googu ñëw na ci xadiisu irbaat ibnu saariya irbaat ku daan ànd ak yonente bi la lu baree bari nee na maa dégg yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan maay abdullah maay xaatimun nabiyyin te boobu aadama ñu ngi koy bind te sotteekut daal ne danaa leen wax loolu nag ni deme man mii la ibrahima ñaanoon waaye it maay ki isa bégle béglee woon aw nitam ne leen Ahmad dana ñëw daan ne it sama waajur am na lu mu gisoon te it ñi waajur yi yónnente yi dañuy am gis-gis yàlla da leen di wan li mu gisoon mooy bi may feeñ rek dafa am leer gu ne ray goo xam ne boo tool toog fi nga toog di gis palais Shaam yi loolu la Sëñ Tuubaa di wax naan nuurun azimun qad yara bihi xusuura xaysara leer la goo ne man da ciy gis njënnay xaysar yi kan man kaana fi umil xura diggante bi distance bi mu sori sori boo tollee màkk da ngay gis euh, palais xaysar bokk na ci kéemtaan yi feeñ ci bi muy feeñ jamono it mooy Faris amoon nañ sawara soo xam ne sawara su mag soo xam ne fu mu toll la daan tàkk dañoo wax ne sax da daan dañu dañu daa amoon ay surga yuñ ko wutaloon ñoo xam ne fu ñu toll ñoo koy xam ñoo koy xam day tàkk rek wax nañ ne euh, am na junniy at yoo ne musta fay benn yoon ba yonent bi sallallahu alayhi bi muy juddu rek pale euh, kii bi euh, sawara si daf daal di giim dafa jékki-jékki rek ne rayi fay dara kenn gisatu ci dara loolu moo tax Sëriñ Tuubaa naan kamis naarin ut fi at maa am mi xaa i daxami bokk na ci ci kimtaan yi feeñ ci bi muy juddu mooy saawata amoon nañ ak dex dex goo xam ne fu mu toll moom it ndox dafa daan am nit ñi di fa rooti di fa wute ji ndox moom it ci bi yonent bi sallallahu alayhi feeñee jamono rek dex googu dafa jékki-jékki mel ne lu ñiis jékki-jékki mel ne lu def ab bàq ne ba ñu yónnee ca sawara sa ñoo leen ah sawara sa de fay na ñëw ci ndox mi moom it gis ne fay na ñu doon root si ku ñëw boo ñëwee doo fi fekk dara mel ne li daan am daal dafa wëlbatiku boo demee ca fa ndox ma nekkoon da ngay yaakaar ne sawaras moo fa ñëw waaye boo demee fa sawaras nekkoon da ngay yaakaar ne ndox mi mu ñëw fay ko waaw ni ko boroom euh, burdu di waxee noonu wa aynu saawat allati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati dex la gu rëy goo xam ne gu amoon daraja la wa suyirat kal adami boo koy xool nag léegi day mel ne dara mus faa am bokk na ci kimtaan yi am ci bi mu feeñ jamono it mooy Kisra amoon na ab pale boo xam ne bi yéen di feeñee jamono palais bi dafa jekk jékki yëngu-yëngu gu métti yëngu-yëngu gu métti sax ba ñu wax ne lu mat ñaar fukki balcon wala boog fukki balkon ak ñaar wadd na ci yi ko doon téye daal booy xool am na ci fukk ak ñeent yoo xam ne yëngu yëngatu na ci te yëpp yëpp boo ko doon boo koy xool ñaar fukk ak ñaar la kon day mel ni xaaj bi yëngatu na moom ba mel ni lu xaw rës wax nañ ne keno bi nga xam ne moo tii woon pale bi boo ko doon xool dara ji ñu amoon day tolloog téeméeri xasab téeméeri xasab muy pale boo xam ne kenn mus sa gis mu mu toll dëgër lool it ñoom dañ daan faral di léeb ni suñ pale bii de dara mënu koo yëngal dara mënu koo maab bu lu may ëllëg dafa jot bañ wal baftu wi bu ñu walee baftu ba nga xam ne léppay maab moom boobaa dana maab waaye loolu loolu mbindeef mënu ko màbb waaye bi yonent bi sallallahu alayhi feeñee jamono rek dañoo gis ay màndarga jékki-jékki am yu jékki-jékki naan rëng rëng rëng rëng rëng ngir rek wane ne moom benn nguur moo am te ki ko fi taxawal di di fi nekkal suñu borom di wane nguur gi fuñ ca war a tàmbalee ak fuñ ci war a yem mii ngi ñëw bu ko defee leneen du dul moom rek tey daal di naax saay Kisra bi mu gisee lii loolu daf koo jaaxal mu gisee pale bi def nii daf koo jaaxal tax mu dajale mbooloo mépp di leen laaj naan leen ah xanaa daa am lu xew ñu ne ko déeret ah ñun koy loo ñu waxul rek fi ne xamuñ ko biñ ci nekkee di discuter di discuter ba mu yàgg am ndaw lu ñëw daan leen ah yéen di seen fii li fi xew yéen a ngi jaaxle waaye waa Faris yi ñu ngi jaaxle ndax seen sawara sax giim na nee na mu daal di yokk ci ak njaaxleem fas daada xamman ilaa si <laughs> iwaanu kisran sadaa fiha wa qablu rufia samkun lahu fartafaa mooy li ma wax léegi maanaam kenn yi ko tiimoon yi ko téye woon nee nañ daf mi ngi tolloog téeméeri xasab naxwa saman mukarram nee nañ bi mu yëggatoo sax Sëñ Tuubaa da cee teg xatta sarirun kasara maanaam kisra lim toogoon lal bi mu toogoon dafa dammatoo li ajli hawlin iqtara loolu lépp nag li ko li ko indi mooy min nuuri afdalil wara ndax leerug yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dàqoonteeg lëndëm gi nga xam ne moom ñoom ci lañ bi bim feeñee jamono ba tàmbalee xàmmee bañ yóbbu ko ca sayyidatuna Halima mu koy toppatoo foofu it am na ay kimtaan yu fa feeñ kimtaan ga ci gën a mooy xarug dëndam xarug dëndam xaru dënn bi dañ cee wute ñaata yoon la am ci dundam am na ñu ne ñett waaye yi ci gën a siiw mooy ñaar ñaar yoon benn bi mooy bi mu amee ñeenti at ba nekk ca baadiya bani sant ba mooy bu nekkee ca xalima sandiya ñaareel bi bi muy def rañaan gi ñaar yëpp nag am na lu muy tegtale bu dee bu njëkk bi li muy tegtale mooy bi mu nekkee xale nekk ca xalimat sandiya loolu muslim nettali na ko ci xadis boo xam ne anas moo ko moo ko soloo dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi jibril laf koo fekkoon muy foo ak xale yi na mu jël ko daal koy ndërmeel mooy daaneel ko tëral ko daa di xar ab dënnam génne xol bi ba mu génn nii mu daal cay génne benn dog wu ñuul bi mu ko génnee daal ne hada xasu cheytan mink cheytaane fii la naroon a jaar ba am ci aw yoon daal jël xol bi daat koy raxas ci ndab loo xam ne wurus la raxase ko ndoxum zam-zam daal di boolewaat xool bi delloo fam nekkoon nee na xale yi biñ gisee loolu daal di daw ñëw ci xalima di ko wax li xew naan ko yonent bi faat nañ ko am nañu ko dogale ba faat ko ndax boobu ñoom xamuñ li xew li feeñ ci saaxir ni moo leen jaaxal nee na fi ñuy waxe lool rek jékki-jékki gis yonent bi di ñëw waaye kanam gi mi ngi soppiku lool sallallahu alayhi wa anas daf daan wax naan fiñ ko ñawal fiñ ko ñawal ci dënn bi moom mosaan xool dënn bi nii ci ginnaaw bi dama koy séen euh, dañoo wax ne laabal googu nag googu ko Jibril doon laabal mooy daf ko doon laabal rek ci ba saytaan doom ci moom aw yoon moo tax booy jàng siira nga gis yonent bi sallallahu alayhi ni mu nekk ndaw ba ni koy yàlla yónnee yónnee alayhi salaatu wasalaam doo gis ci moom benn jukko ju safaanu doo gis ci moom lenn lu mu wërta lu wërta gis ci nit ku baax daawut foowee yenn yi daaw ko kafe daaw ko jukkoo ndax lan ndax li li li ko waroon a yóbbee ci muy def lu mel noonu dañ koo dindi ci moom moo tax ñaareel bi mi ngi amee ci bi nga xamee ne mat na nag nekk na mag ba am ñeent fukki at bañ yónni ko ba mu jóge Taïf ba daj yu baree bari ba yàlla war koo neexal mu war a dem ci rañaan mi rañaan mi rek moo jiite la waaye it foofee it jibril fekkaat na fa daal di xaraat ab dënnam foofu xaru dënn boobu nag wuute naag bii bii moom cërub seytaan la doon dindi bu dee bee moom gëm yàlla la ko doon daf ko doon renforcer ci gëm yàlla ak ci xam-xam waaw ci ni ko borom xam-xam yi waxee loolu Sëriñ Tuubaa wax na ko xaru dënn bi wax na ko junj na ko ci ay béy ju bari am na fu mu naan damiruhu nazahahu jibrilu bi kaffihi an kulli ma yamiru ci tenqul boppam la ko dindee seetal ko ba du defati lenn lu jaaduwut taharahu alquduusu min uyubi bi shaqi sadrihi wa tardi alxuubi taharahu fi zahirin wa batinin min kulli aybin barizin wa kaaminin bépp ayib ju feeñ ak ju nëbbu jibril dàqal na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jaare ko ci xaru dënnam boobu faneen mi wax naan nuzziha qalbul mustafa an kulli ma yaxuulu baynahu wa bayna si sama sufiya baatinun lahu wa ma dahar loolu na lum mu ko indil fa abadal mawla bi bihi amar moo tax moom jekku jaamu yàlla di ko jaamoo na ko yàlla digle bokk na ci kéemtaan yi am njëkk ñu ko yónni it mooy eh, yónni bi sallallahu dafa teel a bëgg lu baax di teel cee dox jëm moo tax bi mu xàmmee rek rawatina bi muy waaj am ñeent fukki at da daan dem ca xaaru xiraa daan fa wéet di jaamu yàlla foofu it wax nañ ne yoon bu daan dem lu mu romb ci ay garabak ay montagne ak xeer ak doj dañ koy wax assalaamu alayka ya rasulallah dañ ko daan nuyu waaye bu geesoo bu gis rek lu muy ay xeer aki doj aki garab aki yu mel noonu loolu ci ay kimtaanam la bokk loolu moo tax suñu tubaab doon wax naan minha salaamul xajari bokk na ci kimtaan yi amit ci biñ koy yónni yëpp mooy avant ñu koy yónni waaye ci biñ koy yónni bokk na ci kimtaan yi am mooy xam nañ ne seytaane yi dañ daan ñëw ci njabarkat yi di leen xibaar liñ daan dégg ci asamaan dañ faa amoon seeni seeni seeni garam place seeni seeni seeni jekkiwaay yoo xam ne fa lañ daan toog waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla waray jox mission war koo yónni foofu dañoo dem buñ demee rek am lu leen fa dàq ay xeer yoo ànd na sawar leen fa dàq loolu mm, suñ borom nettali na ko ci suuratul jinn qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin ak ba saar yu jeex qissa leer na ci inna kunna naqudu minha maqaida li sam fa man yastami laana yajid lahu shihaban rasada ba bam jeex ak beneen aaya wa iz sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al quran gannaaw bi looloo tax jinne yi biñ demee ba gis alxuraan alxuraan wàcc ci lañ xam ah, kon ñun lii moo taxoon ñu naa yàlla daa bañoon suñu suñ suñ suñ suñu wax yi suñu nettali yi di jaxasoo ak alxuraan mm-hmm. moo tax mu mu teel koo protéger defee ko noonu mm-hmm. loolu it yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu borom defal ci bi mu koy yónni mooy dëkk aaral na ko mission bi mu ko war a jox ak risaala bi mm-hmm. loolu tax suñu tubaab di wax naan wa kan qidaadi shuhubi tardan li ahli riyab ndax ñoom ahlu riyab lañ ñooñ buñ déggoon ba wax rek alxuraan wax wax yi mën naa indi ñaari wax yi mën naa indi ay ay mbir an sami axbaari nabi wa raja'u bi nadami ginnaaw dañ daan dem diglu ji am information tey bu ñu demee duñu fa fekk dara bu ñu ñëw rëccu la ñuy indaale turida fiha bin nujum an istamawaati rajim wax wa farra xaasiran julim bi xisbihi daawakami mi ngi doon wax ci raayee it naan lahu ladallaahi sirrun laa yutaaliuhu bil kaddi wal ilmi ruhbaanun wa axbaar jamono ji moom loo mën a def lu tax nga dégg dara ci asamaan am na kimtaan bu amit ci bi nekkee ci xunt mi ak Abu Bakar loo xam ne it moom alxuraan leeral na ko ci ni ko fa suñ borom aare euh, bi an kabuutin nasajat maa xamaamin athbatat ba bayit yooyu jeex ci tënk daal kon ay kimtaan yu bari la waaye gannaaw loolu bi mu nekkee ci biir mission bi it am na ay kimtaan yu bari bari yu ko indi yu ko yu ko feeñu loolu nag la borom xam-xam yi gën a tudde mojisa dañuy wax ne mojisa Euh, xar baax mbir la moo xam ne bu ñëwee du bokk ak lañ baaxoon a xam al amrul xaariq lil aada lay doon dañ naan lii dafa xotti baax mooy daal dafa amee ci anam goo xam ne yi dawut baaxee amee noonu tey lu ci ëpp dafay ànd ak taxaddi mooy ki yàlla yónni danaan da ngeen maa gëmu ñu ne ko waaw mu ne est-ce que bu ma defee nangam da ma gëm te lam ne bu ma ko defee ñaare du nekk luñ mën a def léegi nag loolu bu ko defee rek mooy dañuy xam daa mu ne ci ginnaawam waaw ah. loolu mooy xar baax suñ tubaa doon nañ ko wax ca tasawudu subbaan naan ñu amma ala sidqihum dalilu fa mujizatun anzala al jalilu makaana qawlihi taala qad sadaq abdiya daa fi kulli ma axbara xaq maanaam mujisa mooy taxaw taxawaayu mel ne yàlla daf ne lii laa la fi tegal boo ko defee rek mooy kon dañ laa war a gëm dañoo war a xam ne li nga wax dëgg la mucjisa wa hiya amrun xaariqun yu xaarinu daawa risalati allati yu aayinu mucjisa fu mu fu mu amee day day ànd ak am kuy woote ak yonent maa taxaddihi day ànd ak taxaddi mooy da ngay dëkk ñi ngay waxal ne lii xam naa ne kenn mënu ko waaye man mën naa ko mën naa koo def ngeen ngeen gëm li may wax wa yujizu zaman kulla muaaridin an ityaani bi mislihi nasran min dayyaan te li nga li ngay indi ci yàlla lay di jóge kii ne sa ginnaaw di la di la defal loolu mooy yàlla ci lay wax naan maana taxaddi xawlu man qad ursila ayatu sidqiya kada fa xasala misla shiqaaqi alxamari almaarufi wa ka kalaami dabbihi almalufi borom xam-xam yi nag wax nañ ne bépp mucjisa bu ab yonente musa am yonente bi salaa salaam am na ko bépp mujisa bu ab yonente Musa am yonente bi sallallahu alayhi am na ko wala mu am bu ko gën a kawe ndax yonente yi fi nekkoon yëpp yi fi jaar ñëpp dañ doon bégle ci dañ doon laytaayaat rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp it yàlla waxoon na leen ne ku ngeen ku ku moom jamono na ko gëm yàgg ñi nga àndal mooy comme aaya bi mu njëkkoon wax la tu'minunna bihi wala tansurunna borom xam-xam yi wax nañ ne karaama yi wali def mujisa la bu ko ab yonente defee mujisa lay tudd ndax wali yu li tax muy am karaama mooy mi ngi koy jëlee ci topp gu muy topp ab yonente ak it euh, gëm gum koy gëm ba ca am tiyaaba am na fu muy àgg ci topp ab yonente ak gëm ko ak sopp ko fa lay taasoo ci barkeem ba mën a am karaama loolu tax suñ Tuubaa tam wax naan la in jaa bil ayaati rusulun taqaddamu fanaalu bikal ayaati min zid tafadduli moo gise yi feeñ ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bari lool te it moo gën a fees moo gise yi daan feeñal yonente yi moo leen gën a dëgër ay moo gise la yoo xam ne kenn mënu koo takk ndax buñ ci jëloon benn te alxuraan rek alxuraan moo gise yi nekkaat ci biiram xar baax yi nekkaat ci biiram kenn mënu koo takk ndax yonent bi sallallahu alayhi wax ne ne ku ci mën a indi benn saar kenn mënu ko ku ci mën a indi benn aaya kenn mënu ko ashr fukki aaya fukki saar kenn mënu ko loolu tax suñu tubaab moo ko doon wax naan masaayaaka yaa kulli la dal kulli qad jalat walakinaha jallat an ash-shi'ri wa an-nazmi ñëpp xam nañ ne yaa fi man say jaloor kenn kenn mënu ko waaye nag kenn mënu mu ginnaaw kenn mënu koo xam moo tax kenn mënu koo way kenn mënu koo wisar maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi muqayyabatun fal taqra an suurat an-najm lahu xawaariqu tanmu sarmadan wa lahu ay ay ay ay xar baaxam bokk na li ci yéeme mooy dafay day mel ni boo koy jàng day gën a yokk ci say bët wa lahu min al ajaibi ma li rusli lam yarid li mu am ci ay kimtaan ak i xar baax it kenn kenn kenn musu koo am tartibu ma lil barri min manaqibi wa addu ma lahu min al ajaibi taiba fihi al fusaha wal bulaga wal kullu minhum kulluhu ma balaga bokk na ci kimtaan yooyu mën nañ koo seetle kimtaan yoo xam ne kimtaani maanaa la bokk na ci yooyu alquranul karim moom Sëriñ Tuubaa wax ci yu baree baree baree bare tilkal xawaariqu ma zalat tuayiduhu lam yazal xilluhu yati bi ayaati tagg alquran waxit kimtaan yim amaat xata ata bi kitaabin ajazal bulaga wa kalla an mislihi ahlul fasahaati akrim bihi min kitaabin qad shafaa ilalan fa anqada sahba turan min gabawaati bokk na ci kimtaan yooyu mooy daana xeex ba ca biir suñ borom renforcer ko ak i malaayika malaayika yooyu nag buñ ñëwee li adadin laa li xaam renforcement la ñu nekk rek boo xoolee nit ñi ñu bari lool yëfër yi daanu nga yaakaar ne dafa am ay nit ñu ñëwaat fekk ay malaayika nekk ci biir loolu it bokk na ci li ko yàlla defal ci ay kiimtaan daana ko dimbalee ngelaw tamit ngelaw is jaatkum junudun sal arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na wax naan musirtu bis saba wa uhlikat aad wa uhlikat aadun bid dabur suñ tubaa wax naan kaana yu'inuhu riyaax kama yu'inuhu rimaax nim daan gise ci kanam yi noonu la daan gise ci ginnaawam loolu wax na ko ay saxaabam ba tàyyi dee leen defal sàppe yi xam ne maa ngi leen di bàyyi xel ndax ni ma leen gise bu ngeen bu ma jàkkaarloo yoon boo leen wanee ginnaaw tamit noonu laa leen di gise te gis boobu la ñuy wax ne gisu dëggantaan la waaye nag xar baax la boo xam ne moom la ko yàlla defal wax nañ bokk na ci ay kimtaan mooy kimtaan yi maanaa yi nga xam ne moom danga koy dégg gëm ko rek waaye du lu ñu teg loxo mooy ay bëtam bu daan nelawee xolam du nelaw moo tax suñ tubaa naan ko yaraa waraa wa amaan wa aynuhu kaanat tama tanaam wa qalbuhu lam yanam bokk na ci ay kimtaanam yoo xam ne dafa am ci jamaadaat yi ak gàncax yi bokk na ci ci gën a fees mooy yàlla xarloon na ko weer wi te loolu dañ ko doon weddi mu ne bu ma xar xaree weer wi ñaari dog ndax da ngeen ma gëm ñu ne ko waaw mu xar ko fii ñu gis ko kuñ ko laajaat ci it ñi nga xam ne dañoo tukki woon bu ñëwee ñu confirmer ko loolu ci ay kéemtaanam la bokk kaman shaqa badrun shahidun fama bil fadli lahum shiqaaqul qamari faneen muy wax naan shaqa li tasdiqin lahu llahu al qamar wa dhaka ma waqaa xattu li bashar lii moom yonent bi rek moo ko sa am wawa allati shaqa tasdiqan lahu xamaru ba ni bay di jeexe ndoxi daana ball ci ay baaraamam loolu am na ci ay xare yu baree bari loolu ci kéemtaanam ñi la bokk moom it moom rek la ko yàlla defal daana ñaan daana ñaan e, ci ndox mu jekk-jekki bari lool ba nit ñëpp naan ci wëgg ci seenu jur def na ko ci ay teen ak yu mel noonu huwa allasi majja fawqa al biri wartafaat miyaahuhu kartifaain mawji fi l xabari wal biru faarat ida al muxtaaru majjalaha bu ci yàbbee rek day jékki-jékki bari lool wal maa u qad saara misla al mawji munsajima mel day mujj mel ne ay duusi géej sarxun tasiiru gaysun yafuuru biirun tafuuru bila rishaay daana jëfandikoo aw ñam ba mu yàgg muy sàbbal ci biir ay loxoom loolu it def na ko ay yoon yoon moo tax suñ tubaa naan sumi an tasbihu taam fii kafi afdalil afdalil anam ay kimtaan yi bari na am na ci gileem mos na koo jàmbat zibu mus naa wax ak moom till kéwal mus naa wax ci kanam yonent bi sallallahu alayhi bukki am picc day daan ko màggal xam ne picc moo xam ne ñanaaw loo xam ne bu bu dañuy wax ne soxna yi soxna yi soxna yi dañuy wax ne buñ bu fi yónnite bi nekku ci kër gi dañuy coow rek waaye bu xasee toog <laughs> dañ naan tekk di wane ne maanaam jotaay bi soppeeku na bokk na ci ay kiimtaanam it mooy weñ daw laal yaramam daw laal ay yéreem gis nga ñun weñ yi ñu sonale min ha tajannubu zubaab an jismihi ma'a siyaab euh, fi may mujje mooy nag ay jagle yoo xam ne dafa feeñ ci lim ëndaale mooy chariance boppam si bokk na jagle yi ci feeñ mooy sariyan la soo xam ne bi mu ñëwee moo folli sariyan yëpp loolu liy tegtal bi mooy li suñu borom wax ne wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu fi l-akhirati min al-khasirin ak wa anzalna ila al-kitab musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi muhaiminan alayhi mooy sariyan la soo xam ne moo dominé yëpp ni mu leen dominé mooy bi mu ñëwee daa xool sariyan yi fi njëkkoon a ñëw mu jël la baax ci yooya la ca la nga xam ne ak yi nga xam ne dafa am ay masalih kulliya nga xam ne ñëpp mën nañ cee continuer di jariñ mu bàyyi ko fi yi nga xam ne nag ay maslaha juz'iyya la woon sharia yi nga xam dafa amoon ay masalih juz'iyya muaqqata nga xam ne ñii rek ñoo ko mën a jariñoo ñii rek la arrangé mu folli ko loolu mooy folli gi loolu tax suñu Tuubaa doon wax naan xaaza kitaabuhu jamia maftaraq fi gayrihi min kutubin min al firaq faneen muy wax naan rasuluna ahmadu jaa musaddiqa liman taqaddamu wa kullun sadaqa bi naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam musaddiq li ma bayna yadayhi mooy daa xool li fa baax rafet ñëpp mën ko góor ne di jëfandikoo mu bàyyi ko fi yi nga xam ne nag moom dafa personnel mu raat koy folli ahmaduna jannat jannatuna junnatuna rahmatuna ni'matuna furhatuna wa diinuhu min afdal al adyaani inda al ilahi al malik ad dayyaani ni'matu kulli muslimin wa mu'minin raxatu kulli aabidin wa muhsinin diinu nabiyin muntaqa diinun xawa maara maqaasidu haati hada aw kami <laughs> ay bayit yu bare bare yu neex de bu dee jagle ak kimtaan yi muy am yowmal qiyaam bokk na ci mooy buñ demee ba dajale nit ñëpp ñëpp jaaxle moom mooy kiy jiitu loolu dafa ñëw ci xadis yonent bi sallallahu alayhi bu ñëwee maay nekk imaamun naas maay jiitu maay nekk seenu xatiib man rek maa fay jël maa fay maa fay jël discours maa leen di ràmm te li may wax nii ndamoo mën ci anas neen damaa dégg yonent bi sallallahu di wax naan man la suuf si njëkk a xar ma génn yawmal qiyaam te ndamuuma man jox li waawul xamdi te sangum nit ñëpp yawmal qiyaam te ndamuuma maay njëkk a dugg àjjana yawmal qiyaam maay njëkk a ñëw ci buntu àjjana fëgg ñu ne kooku ma ne ana muhammad muhammad ay fëgg nee na bu ma ko waxee rek dañ may daal di ubbil ma daal di dugg ma duggee rek damay jàkkaarloog suñu borom fa isal jabbaaru mustaqbili waaye mbaax gaak tegg ñi nee na bu ma gisee suñu borom rek damay daal di ne rëpp damay sujjóot nee na mu ne ma irfaa ra'saka yaa Muhammad siggil tey mën ngaa siggi wa takallam yusma mink waxal lu la neex loo wax ñu def ko wa qul yuqbal mink foo foo bëgg rek ñu dem fa washfa tushfa nee na mbaa di siggi nag daan ni ko yàlla li may wax ak yow mooy ummati ummati yaa rab ak a gore <laughs> nee na suñ borom ne ko kon demal ci saw xeet koo fekk ci moom lu tollook sànqle ñu gëm yàlla rek dugal ko àjjana loolu la suñ tubaa day wax naan lakal wasilatu yowmal xashri min malikin ixtaara kawnaka za sabqin wa ajraahu mi wax ci sindi di naan muhammadin mazka il axyaari qaidina li jun li jannatil xuldi yowmal xashri yallahu moom it la suñ borom jox ma al maqaamul mahmud ak xeeti rambu yu wuute ndax rambu uh, loolu luñ lu ñu war a mën a waxtaane la ndax dañ ciy dégg ñu an diw dana ramb ak diw du ramb ak ban rambu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jagoo rambu gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jagoo dafa am ay xeet rambu yi ñu baax ñi mën a rambu yi dafa am ay xeet li ñu wax ashafaatul amma muy ràmm gi nga xam ne moom la ñu war a ràmm nit ñi bu ñëpp jaaxlee mooy bu ñu dajaloo ba ñëpp di ñaani intervention jëm ci yonente yi yàlla musa yoon ñëpp ñoom ñëpp kuñ dem ci ñoom dañ naan lu mu tontu lastu laha ah tey kat mu ma ci dara lastu laha bu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag may leen ana maa ci man dara lii may wax mi ngi ci ñaari saxiix yëpp muy saxiixul buxaari ak saxiixul muslim ramm gi nga xam ne moom moo ko jagoo nag euh, ramm gi nga xam ne moo ko jagoo nga xam ne moom dong moo ko def mooy ramm gi nga xam ne kenn du ko delloo dañuy wax naan ramm ñeenti xaaj la ramm gi nga xam ne mooy bu nit ñi dajaloo foofu intervention bi ñuy ñaan mooy yàlla gaaw ci li muy def ndax ñu noppalu <laughs> gaaw yi rek la ñu noonu rek la ñuy ñaan boobu mu yindi sallallahu alayhi wasallam moo ci mën dara mooy dem ci yàlla wax ak moom yàlla dégg dégg ñaareel bi mooy rab mu nit ñi dugal leen àjjana duñ leen xisaab xam dañuy ñëw rek ñooy la jàll si loolu yonent bi rek moo ko waaye nag comme ni mu ko tëjee xar baax yi nga xam ne it wala jagle yi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala jëlal na ko sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yëmul sax ci àddina waaye ba bis penc ba bis ba nga xam ne day mel ne. bu ñëpp jaaxalee ba amuñ fuñ jëm kenn rek mooy taxaw suñu kanam ràmmuñu muy sallallahu alayhi wa sallam muy lu am am solo loo xam ne bokk na ci jànget yi nga xam ne des na ko ci jëlee mooy jëmmi Seexul Xadim nag nga xam ne moom day mel ne daa bokk ci mojisaati sax sëriñ mojisaati sallallahu alayhi wa sallam moom suñ ci wax ndax it ci xasida yi Cheikh Abdou Khadre ni mu ko indee am na beneen jàngale bu ñu jàngal mooy ñi nga xam ne day jàpp ne xasida yi mbirum tàgg ak mbirum ñaan képp la doon am na ci lool waaye bëri na ci ay jàngale yoo xam ne sëriñ bi jàngale na ko ci biir rawatina ci dunduk sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne sëriñ bi it am na tontu bu muy muy tontu ñu ñi nga xam ne jàpp day day mel ne dañuy laaj ne sëriñ bi sallallahu alayhi wa sallam day liggéeyal moom la topp. lan moo tax sëriñ bi topp sallallahu alayhi wa sallam. da mel ne loolu da mel ne ab question la boo xam ne moom la sëriñ bi doon tontu ci biir xaside yi di di di wax mojisaati sallallahu alayhi wa li nga xam ne moom la wuteeg ñëpp. muy sang gi mu sangu ki nga xam ne yàlla jiital na ko ba jox ko loo xam ne teneen mus ko am ci kaw suuf. Mm-hmm. di mujjisaat di nga xam ne Cheikh Abdou Khadir wax na ko ci biir mbindum Cheikhul Khadim. Mm-hmm. mu mel ni ci biir mbindum sëñ bi euh, ñëpp ñi ngi jàngale siira ñi ngi jàngale sallallahu alayhi wa sallam waaye sëñ bi day mel ne dafa jëlee côté bi nga xam ne boo jàng xasida yi cofeel gi nga gën a am sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. ndax ni nga ko waxee mujjisa wala xar baax dana tax ki nga xam ne mooy topp kooku. mojisa yi muy def ci lay sukkandiku gën ko gën koo gëm. Mhm. gën a xam ne kii si mboroom ma ko yoon yónni yàlla jox na ko lu mu joxul kenn. Mhm. loolu da mel dalil la euh, buy buy buy tegtal loolu. sëriñ bi indi na ko ci biir xasaayid yi lu bëree bëri loo xam ne kii jàng xaside di ko liir dana gën a am cofeel goo xam ne am na ko ci diggante mag sallallahu alayhi wa sallam muy lu am solo loo xam ne Cheikh Abdoul Xaadir indi ko. Mhm. kon day ne ni ko waxee léegi rek sëriñ bi moom daa bokk ci mojisaati sallallahu alayhi wa sallam ndax am ku mel ni sëriñ bi ginnaaw bi mu fi jógee mu yeesalaat sunnaam yeesalaat yoon wi ba tey jii ñëpp mën a xam sallallahu alayhi wa sallam loolu day mel ne bokk na ci mujjisaat yi li euh, nga ko leeralee it bokk ci mujjisa yi gën a rëy mooy alquranul karim waaye sariatul islam bi nga xam ne moom la ñu suñu borom subhanahu tànnal waaye jaarale ko ci sallallahu alayhi wa sallam mu yoon wi nga xam ne mboolem lu muy digal doomu aadama daa gën ci moom mooy sariya lépp loo xam ne ni du ko digal doomu aadama mu di ko def loola même bu dul ndigalu sariya sax loolu daa gën ci moom. bu nekkuloon sariya da ko war a def. lépp lu mu ko tere loola bu ko bàyyee euh, loolu ak lorom la lépp lu mu tere ak loro doomu aadama la kon loolu mooy. bokk na ci sariya bi nga xam ne mooy bi gën baax mooy bi gën a jub. bi nga xam ne day mel ne ma ndimbalug doomu aadama la mooy mujisa bi nga xam ne si moroom moo ko feeñalee ci sallallahu alayhi wa sallam kon. Euh, day mel ne waxtu wi dafa dafa nekk ci cëppaandol gi moo tax euh, Cheikh Abdou Khadir ni mu ko indee mënee suta tënk lépp waaye am na solo solo goo xam ne day bokk rek sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy gën gi mindeef yàlla tànn ko indil ñu ko ñu bokk ci aw xeetam muy luñ muy muy muy loo xam ne lu ñu war a sant yàlla subhanahu wa taala muy bokk ñu bokk ci xeetam mm. waaye bokk ci cheikhul xadim mi nga xam ne moo ñu xamal kan mooy sallallahu alayhi wa sallam ko Serigne Abdou Khadre indee ci biir xasaay di kon xam na si Abdou Khadre ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaan wu am solo wi waaye di fàttali eh, ñi ngi ànd ak kuréelu daayira Muxaddamatul Xidma eh, ànd ak moom di kuréelu liggéeyal ku gi di kuréel bi nga xam ne seen yéene mooy liggéeyal Seexul Xaddim waaye jaar ci xam-xam di tasaare xam-xam kuréelu kuréelu daayira Muxaddamatul Xidma du kuréel bi nga xam ne ñoo jumaa ji waaye lépp lu saytul aju ci wàllu jumaa ji ñu lëkkaloo ngir gën a mën a yombal tasaare gi nga xam ne moom la ñu tasaare njàngalum sëriñ bi di leen sant bu baax di leen gërëm ci lëkkaloo bi euh, ndax it ñaari kuréel yëpp seen yéene mooy liggéeyal sëriñ bi te loolu it day mel ne moo tax lëkkaloo gi am waaye mu lëkkaloo comme ni ko si Abdou waxee ci njëlbeen gi rek mm. euh, du lu kéemtaan du lu kéemtaan ndax ñi bëgg a liggéeyal bi seen booloo moom euh, yaakaar naa du du doon loo xam ne ni day jaxal kenn kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci yombal gi ak ci njàppandal gi waaye di sant mboolem ñi nga xam ne ñuy doon topp jotaay bi mooy jotaayu xam-xam yi nga xam ne moom la kuréel liggéey di ku tedd di amal at mu jot bu weeru gàmmu duggee ngir gën leen a mën a xamal sallallahu alayhi wa sallam waaye gën leen mën a xamal njàngalem sëriñ bi lii moo nekkoon waxtaan yi nga xam ne moom la kuréel bi kuréel liggéey ku tedd gi doon amal àndee ceeg kuréelu daayira moo xaddim na xidma fii ci diwaanu Touba di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ci yeneeni numéro ak yeneeni borom xam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu